aus billah min asheytaan rajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxbihi alxur almayamin wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin ñu ngi tàmbalee suñu wax ci ñu ngi bokk bi teew yëpp leen ndokkeel ci weeru tedd wi weeru koor ci cheikh ramadan mubarak ak ci barab bu tedd bi ñu nekk muy almasjidul jaami yu Seexul Xadim di nuyu tamit mbokk yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ki ne ci bopp bi di suñu sëriñ Cheikh Afia Muxtar Bousso ku nuyu di ko siyaar bu baax a baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo topp ñoom yëpp di taxawee liggéey bu tedd bi di ko ay at te mu bokk ci yi nga xam ne suñu borom digg na ci yu bare bare bari innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin képp koo xam ne day dundal néegu suñu borom ki nga mën a def mooy ku gëm yàlla gëm bis penc def yi nga xam ne loolu moo jëf yu baax yépp ñooñu jàpp suñu borom yaakaar naa ne des na ñu gindiku leen mooy ñu am ak gindiku leen kon ñi nga xam ne ñoom la suñu borom toog fexe ñu taxawee lii ñu leen di ndokkeel bu baax a baax leen encouragé tamit ci liggéey bi di am mbégte lool tamit ci bokk bi nga xam ne bokk nañ ko yéen année bi ñi nga xam ne mu yéen koy taxawee ci weeru koor bi te mooy di ko dundal ci lu dëppoo dëkk bi dëppoo tamit ko borom dëkk bi bëggee woon te mooy lu ñu leen di berdeele ci ay ndogu ndogu waxtu dog ndog na tam ñu leen di berdeel ci xam-xam yoo xam ne aju seen wàllu diine yoo xam ne ku nekk ñoom waroon naa jóg jàngi ko ngeen fexe ba benn jotaay ñu mën caa jàng lu bare bare bare bare loolu yiw bare la bare ko yàbba la loolu ñu ne ci ndokkal bu baax a baax li nga xam ne bokk yi sant nañ ko nag ci ñu taxawee ko ci liggéey bi mooy benn tomb ñu jëm ci julli ak yan jubluwaay la am julli kon xam ne ne farata la waaye bi ñu ko farata la bu nekk farata ba noppi tamit yéen lan moo tax ñu ci biir ci ay jubluwaay yoo xam ne ki koy kii tëb julli bu ko taxawee dana ko jariñoo fii ci àdduna jariñoo ko ci àllaxira kon loolu mooy tomb bi ñu xam rek ne lu am solo ndax julli dafa am wàccuwaay ci lislaam yoo xam ne amul jenn jëf bu ñu jëf ci islaam lu tal na moom ginnaaw li ci waxee ñaari baat seede yi amul jenn jëf ju ñuy jëf ju tal na julli li koy wane mooy buñ koy farataal ñu ko farataal ci barab bi gën a kaw ci barab yi mooy ko yént bi ko suñu borom da ko wax ci asamaan gën a kaw ci asamaan fa la ko farataale yént bi nekkoon ci situation boo xam ne mënta am situation bu gën a tedd lool te mooy di jàkkaarloo suñu borom foofu lañ ko foofu lañ ko faratale amul benn farata boo xam ne noonu ko faratale waaye tamit faratale ko ci guddi gu tedd googu nga xam tamit mooy guddi leet isra wal mi'raj loolu wane na ne kon amul benn jëf wala lu tolloog moom ci jëfi lislaam yi ginnaaw ñaar baat seere yi des na xamee tamit ne amul lu toll ne moom ci loolu mooy yunti moo ko wax bis dañ ko laaj ne ko ban jëf moo gën ci jëf yi ngeen li ñuy def mu ne julli ci waxtoom julli ci waxtoom mooy li gën ci lépp lu ab julli def mas naa xam ne tamit ne julli wàcc waayam benn jaamu yàlla amu ko ci jaamu yàlla yi ci ne dénkaan bi nga xam ne moom la yonti bi mujj dénkaane ci yor yor bi nga xam ne fi la génn àdduna dénkaane boobee lam ko jeexale mooy julli dénkaane julli la ko jeexale ak yërëm ñi nga xam ne ñooy momeel yi bu ñu jeexale bu ñu jeexal xutba daa wax ne as-salaa wa ma malakat aymanukum maa ngi leen dénk julli ak ñi nga xam ne seen momeel lan yéen am na yërmaane ci ñoom waaye tamit julli ni muy jàppale julli bi ak boroomam buum gi nga xam ne moo jàppale julli bi ak boroomam noonu tamit la nekkee ne day dëgëral relation jullit ak moroomam waaye jullit ak ñi nga xam sax du ay jullit waaye jullit sax ak amran ba nga xam ci lay ci lay ci lay ci lay ci lay nekk ndax su borom day wax ci alquran ne julli day tere ay ñaawteef yu mag ak yu ndaw inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar kon ki nga xam ne day taxaw julli lim lim lim li muy li muy jur ci moom mooy te dem ba am day am yëg-yëgu defar lu mu gis lu lu noonu day am yëg-yëgu da ko war a defar waaye tamit day am yëg-yëgu tere ab safaan loolu bokk na ci njëriñam loo xam ne saw taxam ku nga xam ne nag jaamu yàlla yi dañ koy def ngir di ci topp ndigalu suñu borom waaye tamit dañ koy def ngir joxe ak xam gi nga xam ne am na ko ci jaamu ñëpp jaamu ñëpp ay jaamu lan ko war di jaamu kon jaamu suñu borom ak xam la duñ ko yoreel kon jaamu yàlla dañ ko war def ngir di ko ngir di ko jox ak xam waaye tamit danoo war di jaamu suñu borom ngir di sant ay xéwalam tamit xéwal yoo xam ne kenn xamuñu toll kenn mënu koo tax kenn mënu koo lim kon loolu rek doyoon na ci nit ñi dafa jaamu yàlla àq suñu borom la sant ko ci xéwalam la waaye tamit topp ndigalam la kon donte amutoon ay njariñ yoo xam ne ki kiy julli dana ko jariñoo warteef mu ko noonu dama waroon def la donte amut ay mbóot yi la ci suufam yoo xam ne moo tax ñu faratal ko loolu rek dayoon na mu nekk julli bi da ko war a def ndax nag li cosaan ci jaamu yàlla mooy julli bi da koy def ngir feeñal ak njaamam ci suñu suñu borom jaam bi ab jaam rek la suñu borom mooy mooy borom waaye nag dafa soob suñu borom ci coobareem mu jaamu yàlla yi def yépp mu am ay jubluwaay mu am ay ngóor yoo xam ne moo tax mu farataal ko ci ñun ban suñu war suñu wareef la ñu war koo def ci ñu war koo defal te def na ci ay jubluwaay yoo xam ne su amee dana dana tax li tax islam jóg muy defar dundu julli bi adduna ak alaxira mu am moo tax mboolem jaamu yàlla yi def yépp bu ci nekk am na ay jubluwaay yoo xam ne ki buñ koy taxawee dan dan dan ko jariñoo ci dundu adduna bi ak dundu alaxira moo tax kon xam jubluwaay yooyu tamit dana gën a soññ kii def jaamu yàlla yi ci mu gën cee farlu waaye gën ci am bëgg ndax kii def ak jaamu yàlla te xañ na xamul sax jubluwaay bi mën na koo def nii ci forme bi waaye nag su xamee jubluwaay yi loolu dana tax bu koy def mu ànd ak ragal yàlla waaye tamit gën ci ànd ak xel mu dal ngir xam ne jubluwaay ak njariñ yi nga xam ne moo ci moo ci mën a juddoo moo tax kon li ñu war a waxtaan tey muy jubluwaay yi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw di fartaal gi fartaal julli doon lu am solo la moo tax kon daan tàmbali salaat te xam le baat comme ni nga ko xamee rek ci ku baaxoo wax ci dara da ngay wax la mu doon ba pare doog a andi doog a andi buntu yooyu ci topp kon li ñu njëkk a tàmbale rek mooy julli mooy lan julli mooy lan fee tàmbale dara bu ñu koy xamle tamit ñaare dañuy tàmbali souvent ci li ñu tuddee pirum araf mi baat bi la tekki waaye tamit bu tekkee loolu bu noppi nan lañ ko jëfandikoo ci ci islam ndax islam dafa wàcc ci alquran nga xam ne baat yi baat yi baat yi muy jëfandikoo yëpp baati arab la yoo xam ne am na lu doon tekki avant l'islam bi ñëw avant l'islam bi ñëw doon lu tekki dara kon loolu mu doon tekki lan la di ko waaye tamit bi ko islam jëlee ban maanaam la ko jox loolu ba tey lu am solo ñu xam ko kon baatu salaa ñi bind histoire liñ ci faral di wax mooy dañuy wax ne mi ngi jóg mi ngi jóge ci luxal aramiya langue armée ci lu jóge armène mu muy langue boo xam ne bu yàgg la boo xam ne lenn sax ci tawrat ci leen ko bind lenn ci téere tawrat yi ci leen ko bind kon foofu la baat bi jóge muy baatu saat bi ak laam gi ak alif gi baat bi sala baat loxo armée la ci aramiya la bopp foofu la foofu la jóge doon firi nag sëgg sëgg lay firi ginnaaw bi leen ko jëfandikoo muy tegtale julli ñi ko njëkk jëfandikoo muy tegtale julli nag mooy siif yi yahud yi yahud yi ñoo njëkk jëfandikoo baatu assola muy tegtale julli moo tax jóge na ci moo tax mu jóge ci luxa aramiya dugg ci luxa ibre bi nga xam ne mooy langu siif yi ak kerej ak ak masiihu nasaraan ginnaaw bi la jóge foofu la dugg ci luxa arabiya waaye nag boobu jiit na lislaam dugg na ci luxa arabiya lu yàgg avant lislaam ñu ngi bi dugaloon mooy ahlul kitaab yahud yëg nasaraan yi daan jaxasoog arab yi ñoo dugaloon baat bi ci loxol arab ya boobu sax islam ñëwagul kon baatu salaat xamoon nañ ko ci l'islam avant l'islam maanaam ci jub luxal arab yi avant l'islam muy tekk nag ci luxa ay maanaa yu bari dana tekk jokk waaye dana tekk la ñaan dana tekk la jéglu dana tekk la yërmaande dana tekk la tagg wu rafet yu bari ci maanaa yooyu ñëw na ci alquran suñu borom yi wax ne huwa allati yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kaana bil mu'minina rahima suñu borom mooy baatu yu salli alaykum foofu ne daan daan tagg leneen tagg tagg wu rafet tagg wu rafet lay firi foofu bu dee wa malaayikatu mooy malaaka yi dañ leen di ñaanal kon foofu tagg wu rafet ñëw na fi ak ñaan kon yooyu yëpp dana ko firi naka noonu tamit inna allaha wa malaayikatu yusalluna ala nabi foofu tamit ñaan la yaa ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima benn aaya dañu wax xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhirihim wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawataka sakanun lahum na ngay jël seen alal yi asaka ndax moo leen laabal di leen sellal waaye ta nga leen di ñaanal wa salli alayhim kon foofu baatu ñaan la teg dañ fi ñaan foofu tamit kon lool loolu mooy ci jàll li jëm ci wàllu maanaam ci wàllu luxa waaye nag nan lañ ko jëfandikoo ci charia al islam yi dañ naan julli ak jaamu yàlla la koo xam ne suñu borom moo ko farataal jullit bi war koo def te defee ko ci përin wi përin wi nga xam ni la ñëwee muy loo xam ne yéene ko lal yu ànd ak i wax ak ay jëf yoo xam ne ñu ngi koy tàmbalee ci takbir allahu akbar di ko jeexale ci asalaamaaleykum ñu di ko def ngir lan ngir jëm cee jegeñu suñu boroom feeñal ko tamit ne ko ñu ngi lay topp ñu ngi lay motu ci sa ndigal kon loolu mooy julli ci fii muy loo xam ne tamit comme ni ñu ko waxee rek aw tëralinam suñu boroom moo ko tëralee noonu nga xam ne jullit bi da koy lim ciy taxawee rek mooy jël ko niñ ko tëralee waaye amu ca nammeel ko ci mën a def amu ca coppandiku amu ca benn man-man lu jël ko dan li wax tawqiif yi la mooy loo xam ne amut soppandi amut tasarruf amul leneen kon yonent bi moo tax yonent bi alayhi salaam di wax ne sallu kama ra'aytumuni usalli da ngeen di da ngeen julli comme ni ngeen ma gisee may may jullee maanaam kon mooy jullit bi amut ak soppandiku gu mu mën a def ci ni ni ni ñu tëralee julli ni ñu ko tëralee noonu la ko kon noonu la ko mën a defee kon loolu mooy julli bu dee nag bu ne jubluwaay yi baatu maqasid jamu la ci maqsad maqsad nag danay wax ne masdar mimi la masdar mimi la boo xam ne moo bu waxoon xasd ñooy bokk maanaa kon maqsad dañ naan qasada yaqsidu qasdan maqsad wala maqsadan muy jublu lan muy muy muy tegtale ak jublu wala wala wala dikke dara ñëw ci ñëw ci dara ñëw ci ñëw ci barab wala ñëw ci dara wala jublu dara wala wala yoonu jub tamit des na ko doon doon fi xasd ndax ñëw na ci alquran wa ala llahi qasdu sabil yoonu jub mboolem moo moo lu war wa ala llahi qasdu sabil kon foofu yoonu jub lay teg foofu kon baatu xasdu jubluwaay lay firi wala ñëwal dara wala mu ci yoon aw yoon wax na wu jubla loo lan lay teg nag bi ñu ko jëfandikoo ci charia al islamiyya mooy ne mooy maanaa wala mbóot wala jubluwaay yi nga xam ne mooy nekk ci lépp loo xam ne suñu borom yoonal na ko suñu borom day wax ne suñu borom teguñu dara ngir coon ngir sonal ñu donte sañ nañ suñu teg sax na ko sonal ñu ndax ay jaamam lan war koo jàmm waaye lépp lu mu def rek suñu njëriñu àdduna la ak njëriñu alaxira kon jubluwaay yi nga xam ne lépp lu sariya teg rek moom moom mu ngi ci mu ngi ci suufam loolu lañ jub loolu lañ jublu mooy maqaasid su ko kon moom mu ne maqaasidu salaat kon mooy jubluwaay yi nga xam ne moo tax ñu faratal julli nga xam ne julli bi buy taxawee julli gi buy taxawee julli gi ni ñu ko ni ko amee ni ñu ko waxee dana dana jubluwaay dana am su amee nag jubluwaay yooyu yooyu julli amal dana amal lenn ci jubluwaayu lislaam yi ndax day mel ne islaam li ko lépp léppam dafa ñëw ngir lan ngir njariñul nit ki àdduna ak alaxira sa li wax saatu dunia wal axira loolu nag lan jël texeeg àdduna ak alaxira nag moom la islaam jël tas ko ci farata yi farata bu nekk rek am lu muy amal ci ay njariñ yoo xam ne yooyu yëpp su dajee jàmm yàlla bu nekk lam lam war a amal ci ay jubluwaay su ko amalee li islam li taxoon islam jóg ci ay njariñ adduna ak alax daal di am kon julli kon day amal lenn ci jubluwaay yi ak njariñ yi nga xam ne moo tax islam jóg te mooy njariñul adduna ak njariñu alaxira kon jubluwaay yooyu loolu bu ñu wax kon maxaasidu salaa mooy yi nëbbu ci ron julli ci ay jubluwaay ak i njariñ ak yoo xam ne bu ñu taxawee julli ñu ko war a taxawee dana am ci dundu jullit bi ak ci dundu société bi muy dund te loolu su amee dana amal lenn ci jubluwaayu lislaam yi nga xam ne mboolem santaane yi ñooy maase di ko amal muy loo xam ne nag xam gi lu am solo la ndax dana dana tax ñu xam ne muy julli muy ak yeneen jaamu yàlla yëpp ay moyen la yu ñuy yoo xam ne du koy jëfandikoo ngir am jubluwaay yooyu yëpp xeeti jaamu yàlla yëpp ba ci julli luy def la ngir am jubluwaay yooyu am ahdaaf yooyu nga xam ne moo tax islam jóg xam gi nag mooy tax buñ koy taxawee ñu koy bàyyi xel ba tax li ñu def mbañ a nekk ay forme nii rek te du am lu ko lu ko rox bu ne ci biiram boo xam ne moo taxoon jaam yàlla gi jóg kon kuy def dara te xam ko ku ne xam ne ne nam koy defee du bokk ngay def dara te xamul lam doon kon xam maqaasid yooyu doon lu am solo su ñu defee loolu moo tax xam loolu am loolu moo tax tamit dana tax tamit ñu mën a jàngat bu baax a baax jamono ji ni taxawee jaamu yàlla yi ba pare te taxut ba léegi li taxoon islaam jóg war ko amal ci dundu nit ñi ci àdduna ak alaxira ba léegi li ci bare gisagun ko dana tax ñu mën a taxawaat ab jàngat seetlu ci ni taxawee ñun jaamu yàlla yooyu ndax ñu ngi ci sàmmonteeg jubluwaay yooyu wala sàmmlewuntu ko kon loolu ba tey lu am lu ma tax bàyyi xel la kon loolu mooy loolu mooy loolu jubloon wax ci maqaasid kon loolu mooy maqaasidu salaat muy jubluwaay yi nga xam ne moo tax ñu fartal julli donte sax mënoon ab bu amutoon tamit julli moom warte fu nu war dañu war koo def di ko jàpp di ko feeñal suñu jaam waaye di ko feeñal santu xéwal waaye di ko feeñal tamit topp ndigal suñu borom waaye tamit jubluwaay yooyu mat a xam lañ ngir ñu xam ne suñu borom farataal yooyu ngir sonal ñu waaye ngir ay njariñu àdduna yoo xam ñoo koy jariñoo tey ak ëllëg li ci toppaat mooy julli day dana am solo lool ñu xam ban wàccuwaay la am ci biir xeeti jaamu yàlla yi des xam loolu day doon lu am solo ndax dafa doon lu central moom julli loo xam ne mu ngi bokk ci li ñu tuddee juróomi ponk yi dax dax day wax ginnaaw ñaari seede yi ashhadu an laa ilaaha illallaah rasulullah julli la ak azaka ak woor ak aj loolu la ñuy tuddee arkaanu islam nga xam ne ñaari baat seede yi moo ne ci kanam shahadataan ndax ndax moom mooy baasu diine ndax mooy pas-pas mooy gëm yàlla te jënd jëf bala ko suñu borooma sant kenn daa fekk mu gëm ba pare kon moom mooy baas mu jiitu du wane rek kon pas-pas solo si mu am nga xam ne moom mooy am ba noppi mooy baas bi am ba noppi jëf du mën a maanaam doog mën a am moo tax fu ngeen fekk ci alxuraan rek bu ne allazina amanu rek bala ñoo bala ñoo amilu salaat dañoo wax allazina amanu ba noppi gëm yàlla day am ba noppi rek baax bi ñëw bu noppee la ci tegu daf ci mën a tegu muy jëf yu baax yi waaye nag bu ñëwee bu noppee la cay teguwaat ci ay jëf yu baax julli moo ci jiitu pas-pas bu jàllee mu ñaari baat seede yi la cay topp la cay toppaat ci ay jëf yu baax mooy julli yonent bi laaj nan ko fonk lislaam day wax ne sax Seydina Jibril moo ko laaj loolu di xadis Jibril boobu ñuy wax moo ko laaj ponk islaam ba mu koy xamal dana ko islaam ñu ngi ko tabax juróomi ponk lu wax ne suñu borom rek may buur kenn du buur kut moom moom la war a jaamu waruñu jaam kut moom Muhammad mi tamit ndawam la bu ko yónni ci jaam ñëpp la ci topp mooy taxawal julli la ci topp mooy joxe azaka aj màkka ak weer waru koor loolu mooy juróomi ponk yi léegi li li ñu seetlu ci xadis boobu mooy ne gis na ne julli kon moo nekk ci ñaareelu wàccuwaay bi ginnaaw ñaar ginnaaw pas-pas bi ginnaaw ñaari baati seede yi moo nekk ci wàccu moo mu nekk tomb ñaareel bi wàccuwaay ñaareel bi ci lan ci solo si ak daraja ji dara warul lu ngir li muy jeexital ci dundu nit ki moo bari waaye li muy jeexital ci société bi nga xam ne fi ko fi nga ko defee tamit moo bari moo tax mun mun loolu ñaareel bi tamit xëy na moo nekk ci wàccaayu ñaar wàccaayu ñaareel bi waaye nag dañu jàpp ne mooy ponk bi njëkk ci ponk jëf yi bu ndee xool jëf yi nga xam ponk yi nga xam ne jëf la julli mooy ponk bi njëkk ndax li ko jiitu muy ñaari baatu seede yi aqida la pas-pas la lu ci xol la waaye li nga xam ne jëfi jaamu yàlla la ñu ko ay cër di ko def julli mooy ponk bi ci njëkk waaye tamit buñ dee buñ xoolee tamit ci jaamu yàlla xeeti jaamu yàlla yi njëkk yi ñuy far ci farata yi ñun njëkk faratal ci xeeti jaamu yàlla yëpp mooy julli kon moo jiitu mbooleem jaamu yàlla yëpp yi faratal moom la njëkk faratal ci ak jaamu yàlla ndax ñu ngi ko faratal ci atum fukkeel ba ak benn ginnaaw lislaam ginnaaw feeñ waxtu lislaam bi ci Makka ci gudd bu ñu ko waxee rek ci guddi gi ñaan ko comme ñu ko xamee noonu nga xam ne yonent bi amaan na at ak genn wàll ci Makka doo ko gàddaay dem Madina te xeetu jaamu yàlla yëpp ñu ngi leen farataale Madina ñi koor ak aj Makka ak asaka yëpp ñu ngi leen farataale Madina moom rek leen farataal Makka kon moom bu ne kon kon moom moo jiitu jaamu yàlla yëpp ci lan ci moom moo leen njëkk farataal waaye moo jiitu xeetu jaamu yàlla yëpp su ne mooy jaamu yàlla jëf gi jiitu ci bu dee ñuy jëf bu dee tamit xeetu jaamu yàlla yëpp nag moom mooy nag wàcce waayu ñaareel ginnaaw ñaari baat seede yi loolu lépp kon day wane soloom soo xam ne am na ko moo tax yuntu ko sallallahu di wax ne julli kon moo tax bu ñu waxee ne mooy kanal diine lu wér la diine ji bu doon bu doon ci julli mooy kenn bu ko téye nga xam ne ku ko taxawal ñu ne diineem taxaw na ku ko taxawal ñu ne diineem màbb na loolu mën ko tegtaloo ci aay yu bare bari ak ahadis yu bari su borom ci benn aay bi wax ne innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salaa man day maay maay sa borom amul benn buur bu man kon nag na nga ma jaam wàq mi salaa da nga taxawal julli foofu bu mu xoolee ci kii bi ci waxin bi ci arab da wax ta'bud ni aqim ñaari jumla bi lépp lu nekk yoo xam ne bu dee ci lu ñuy wax balaaxa jumla inshaa'iyya la jumla inshaa'iyya la ba nopp tamit mu am lu ñu tuddee waslu loolu nag bu ñu waxee mooy la attat bee am rek bi da koy am kon day mel ne bu ne bu ne suñu borom ne jaamu leen ma bu ne wàq day mel ne kon jaamu leen ma lépp lépp da koo tënk rek ak ak mi salaat taxawal julli day mel yuuru jaamu yàlla lépp da koo jël yemale ko ci ak mi salaat ndax waxin yi ci balaaxa mi ñi wala balaax mi ñuy tax loolu lay wax boo jëlee jumla insha Allah nga àtt ko ci jumla insha Allah mu nekk waslu la bee am ci xëyma da koy am laa ilaaha illa anta fa'budni wa aqimi salaat kon jaamu ma bu ne jàmm borom waa xam ne kon day mel ne kon li li mu ci jaamu mooy taxawal julli del taxawal julli te boo taxawal julli ngir lan ngir dima fàttaliku kon foofu jubluwaay bi ñëw na kon lan moo tax ñu taxawal julli ngir di fàttaliku suñu borom kon day mel ne bu ñu doon seet critère bi nga xam ne mooy wane ak jaamu yàlla julli lay jël julli mooy critère bi koy wane dëgg dëgg dëgg moo tax suñu borom wax aqimu salaa inna salaata kaana ala mu'minina kitaaban mawquuta day leen taxawal julli ndax dafa nekk farata joo xam ne dañ koy wutal waxtu wutal ko belokaan waxa tamit ak aqimi solaata tarafay nahaar wa zulafan min layl dee leen taxawal julli ci njëlbeelu bis bi ak ci mujj bis bi nga xam ne jamono ju nekk loolu mooy taxawee ko ànd ci pëseef waaye tamit ci melokaan yi nga xam ne noonu la ko farataal loolu tamit dana woon bokk na ci li woon tamit wàccuwaay mooy ne yoon ci wax na ne julli mooy bopp lis mooy mooy bopp bi mooy keno bi mooy da wax islam maanaam keno mooy julli bu dee ñoo baxtan la mooy jihaad képp la rasulam bi islam wa amaruhu sala wa tarwatu sinaan bil jihaad fi sabilillah benn yoon tamit mi ngi wax beneen beneen benn xaalis tamit ne sama xol bu sedd xol bu sedd mënu ma ko amee ci lu dul julli maanaam sama feex xol ak ak xol bu sedd suñu borom da koo def ci julli ju'ilat qurratu ayni fi salaa kon loolu lépp bu ko dajalee wane na kon wàccewaay bi nga xam ne julli am na ko ci sariya islam ñu dolli ci rek buñ ci dollee nag xuppaate yi nga xam ne am na ci xuppaate yi nga xam ne suñu borom am na ci ci ku ku ku ko bañ a taxawee ku ko bañ a taxawee sàggane ko loolu gisuñu gisuñu benn jaamu yàlla boo xam ne xuppee nañ ci comme ni ñu xuppee ci ku bàyyi julli benn xadis yonent bi aleyhi salaam wax ne diggante jaam bi daal ak kéefar dara jaaru fi lu bàyyi julli waaw ku bàyyi julli maanaam daanaka dugg ci kéfr bayna al abdi wa bayna al kufri tarku salaat noonu tamit ñëw na ci alquran tamit aay yu bari yoo xam ne day wane tamit wàccuwaayam ngir moytu ndu ko ak xuppaate gi mu xuppaate ci ku ku bàyyi julli maa salakum fi saqar xaalu lam nakum minal musallin ña tàbbi sawara ëllëg buñ leen laajee lan moo tax ngeen tàbbi sawara lu ñu wax dara taxu ñu tàbbi sawara lu dañoo bokkutoon ci yi doon julli gis nañ tamit ne ci at atte yi ci atte yi ci xam ne moom la ci sharia islam teg xam nañ ko ki ko def te bàyyi ngir doyagal ko war ngir tàyyal ah moom it bu dul yóbbu tamit fa lay mujj mooy ray fa lay mujjee ko ko bàyyee nag ngir wet ngir weddi ko na du farata kooku moom da nga ko jàpp yéefar da nga koy rey loolu war war na nag wàccuwaayam kon loolu rek bu sukkandikoo mën nañ xam bu baax a baax a baax wàccuwaay yi nga xam ne julli am na ko ci sharia islam bi bokk na ci li nga xam ne wàccuwaayam tamit mooy moom lañ gis ci ak jaam yàlla boo xam ne du wàcc julli bi benn yoon du ko wàcc benn yoon situation bu mën a nekk moo xam daana ci wérad bi wala ci wér ci tukki la nekk wala tukkiwul ci jamonoy jaxe la nekk wala jamonoy yomb boo xam ci xeex la nekk wala ñëw ci xeex lu ci mën a am situation bu mën a nekk du tax julli wàcc ko benn yoon ku mën a jàpp mu jàpp julli su mun na tiim koo xam ne daa nekk ci tukki am coono ba ñu wàññal ko mu wàññi yenn julli yi mu war a julli ñeent rakk am julli ko ñaar rakk ku wéra di muy junj su ma nee toog su ma nee taxaw mu taxaw wéeru su mënut taxaw mu toog su mënut toog mu tëdd loolu yëpp kon loolu la ne kon amul benn instant boo xam dañuy bàyyi day day jéggal julli bi ñàkk a julli benn saxaab yoo xam ne ne damaa amoon ay taab ma laaj yonent bi alayhi salaatu salaam nan laa war a def mu ne ma soo mënee taxaw nga taxaw soo ko mun nga toog soo mënut a toog nag nga tëdd kon loolu mooy wane nag ne kon amul benn yoon boo xam ne kon jàmm yàlla ko mel noonu nga xam ne noonu lay toppee nit nit ki duñ ko ko baal benn jamono loolu ak ki ko ñàkk a taxawee tamit xubbaate yi nga xam déggal ko ji loolu wane loolu rek wane na wàccuwaayam boo xam ne am na ko ci sharia islam yi léegi nag kon buñ jeexale ci loolu julli googu nga xam ne xam nañ léegi wàccuwaay woowu mu am ci sharia islam yi lan moo tax suñu borom faratal ko ci ñun ñu xam ko ngir mu yokk ñu cawarte waaye tamit ñu xam ko ngir ñu gën ko mën di sellal di ko jox ak xam waaye ñu xam ko ngir di sàmmonteeg loolu ko tax a jóg muy am muy am ci ñun di am ci société bi ñu dund loolu moo tax ñu war a xam maqaasid yi moo tax kon danañ njëkk a tàmbali ci benn jubluwaay boo xam ne feeña bu baax a baax ci alquran ak sunna di wane ne bokk na ci li tax suñu borom partage julli te mooy pas-pas wala pas-pas dëgër pas-pas jullit bi xam na ne pas-pas mooy nit ki mu gëm suñu borom ci ni ñu ko jàngalee ni ñu ko alxuraan jàngalee sunna jàngalee ko noonu gëm malaaykaam yi gëm téereem yi gëm yonentam yi gëm bis mujj bi gëm ab dogal mu ñëwee te wax noonu léegi tamit leen loolu mooy base bi nga xam ne ci la jàmm yàlla yépp yi taxaw moom mooy am ba noppi nekk beneen jàmm yàlla dooga mën a am nga xam ne kon day mel ne kon moom ci boppam moom moom pas-pas boobu moo laaj jàmm yàlla yi ki wax loolu bu noppi tamit ñu ne ko ah comme wax nga lii nag defal lii defal lii defal lii waaye tant que wax ko kenn laaj ko jàmm yàlla yi moo tax ñu tudd jàmm yàlla yi di ñoom day mel ne pas-pas boobu moo ko laaj ku wax ku wax loolu war day war ci yow nga def jàmm yàlla yooyu ñu wax noonu moo tax suñu borom wax maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun dara tax ma bind nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon day mel ne kon julli bi dundam bépp da koy war a cuub ci ak jaamu yàlla ndax loolu wax dara warul da xasru la julli dara warul dara tax ma bind doomu aadama lu dul ñu jaamu ma kon doomu aadama mënut a def lenn lenn lu mu jaamu yàlla lu mu def lu loolu rek def ñu tax lu bokk teel tax ñu bind ko moo tax kon julli bi léppam mënut a nekk ñàkk ñàkk nekk jaamu yàlla moo tax julli jiitu ci xeetu jaamu yàlla yépp ndax lan ndax mooy jëmmal dëgg-dëgg jaamu googu ndax lépp la ci julli rek day jëmmal jaamu yàlla googu li ci dëkk mooy day tax nit ki di fàttaliku suñu borom fu mu toll maanaam day fàttaliku suñu boroom ta fàttaliku yàlla day taxaw moom kuy julli fàttaliku yàlla day taxaw moom nga xam ne du du sàggan du fàttali suñu boroom suñu boroom benn yoon moo tax wa aqimi salaata li zikri da ngay taxawal julli ngir dina fàttaliku nga xam ne kon ki kii julli moo tax ñu xoolee julli ni muy jegante ci lépp ngir jamono ju nekk nit ki daa am audience suñu borom di mën a fàttaliku du ko mën di fàttaliku nga xam ne du sàggan benn yoon ci fàttaliku suñu borom te fàttaliku suñu borom ak di ko tudd sa làmmiñ mooy tax nit ki am xol xel xel mu dal ak xol bu dal ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala bi zikrillahi tatma'innul qulub allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ñi nga xam ne doo gëm yàlla seen xol mi ngi mi ngi laab mi ngi mi ngi mi ngi laab mi ngi mi ngi dalee ci tudd yàlla kon julli day fàttali jaam bi boroomam aqimi salaata li zikri ndax nag julli nit bu taxawee mu leer ko ne mi ngi taxaw ci kanam boroomam ngir lan ngir déyanteen moom loolu day mel ne kon dafa beesalaat ma lañ tuddee audience ak suñu borom la muy jàng lépp day baat yoo xam ne suñu borom la jógee tamit muy alquran moo tax boo bu seetlee julli ñu def ko ci muy ay audience yoo xam dafa jege du sore loolu maanaam nit ki balaa xëy dana dana julli ngir lan ngir beesalaat aadoom ak suñu borom ngir beesalaat audience ak suñu borom bu jeexee comme comme dundam gépp jaam yàlla la bu noppee ci julli ga suba ba tisbaar diggante boobu yëpp liggéeyoon ci jàmm yàlla ndax ma nga doon liggéey xëy na diggante boobu dama doon liggéey la nit ki bu xëyee bu julli bu noppi yaakaar naa la mi def mooy liggéey liggéey boobu tamit day daal doon jàmm yàlla boo xam ne bu bu ca noppee mu amaat ak daal suñu borom beneen julliwaat mu julli tisbaar noonu itam noonu lay toppantee ci waxtu waxtu bi seen bépp jamono bu nekk rek dana taxaw ci kanam borom dénte moom beesalaat audience am ak ci moom loolu moo tax ñu ne kon julli day fàttali julli bi jamono bu nekk boromam di fàttali ni nga rakkee moom moo tax lee moo tax léeg-léeg sax ci alxuraan ñuy gis boo xam ne julli ci boppam duñ ko duñ ko duñ ko tuddee sax tudd yàlla sax fàttali yàlla jëmi julli ñoom ñu bëgg zikrullah isa nuudiya li salaati mi yawmil juma fasaw ila zikrillah bu ñu wootee julli bis bu àjjuma da ngeen dox jëm fan jëm ci zikrullah jëm ci julli kon foofu julli zikrullah lañ ko tudde ngir lan ngir ne mooy li fàttali nit ki borom nga xam ne kon jubluwaay bi jiitu ci kon ci julli mooy mooy li nga xam ne mooy fàttali julli bi borom fasaw ila zikrillah kon loolu bokk na ci liggéey kon bokk na ci jubluwaay bi jiitu mooy mooy amal mooy tax nit ki di man di fàttali ko boroomam di ko tudd ci làmmiñam tamit di mën a xeex ak ak càggante ba du mën a taxaw jàmm yàlla yi mu tey kon mu tamit kon kon loolu kon ñu ngi loolu kon ba tey ñu ngi ñu ngi gën a suuxataal tamit ak pas-pas ak gëm yàlla ci ci ci moom ci moom ak ci société bi nga xam ne ñu ngi koy dund kon loolu bokk na ci jubluwaay bi nga xam ne jëm na ci wàll boobu mu am tamit beneen jubluwaay ci ruux nit ki ci ruuxam xam nañ ne julli bu nekk day soxla yoo lu ñu tuddee énergie ci ruux nit ki li muy soxla kàttamu yaram loolu lay soxla kàttam ci wàllu ruux moo tax julli am wàccuwaay bu màgg a màgg màgg ci wàllu ci ci loolu nga xam ne day dëgëral buum gi jàppale jullit bi ak borom loolu tax na ba mu am wàccuwaay bu màgg a màgg ci wàll boobu nga xam ne nit ki bu nekkee julli ni ko suñu borom diglee dana teewlu màgg suñu borom bi ba ak ci martabatul ihsaan bi yonent bi alayhi salaam noonu wax ne dangay jaamu suñu borom ba mel ne yaa ngi koy gis soo ko gisul nga xam ne moom ngi lay gis kon nit ki ni muy ni muy jamono ju nekk di jëfandiku ci wàllu yaram ngir am doole yaram noonu lay soxlaa tamit doole te fépp énergie ci wàllu roxam te julli bokk na ci li nga xam ne day day yàq taaxar ruuxiya ci ab jullit moo tax kon julli bu ñu xoolee li ci nekk lépp ci wax yi ak jëf yi lépp day doon loo xam day dëgëral ak gëm yàlla waaye tamit day tax nit ki gën a ragal suñu borom gën ko ragal gën ko jege moo tax buñ gisee ñu julli ñu koy baamu juróomi yoon ci bés bi ak guddi gi mu nekk juróomi yoon loolu loolu rek farata yi lañ wax bu ci doolee nag naa naafile yooyu yu mel noonu mën naa bari loolu du dara lu rek ngir di laabal ruuxu jullit bi ci lan ci yi nga xam ne ay rëcc rëcc la yoo xam ne en tant que doomu aadama du ko mën du ko mën di ñàkk dal rëcc rëcc làmmiñam ak ci tàggante xolam ak rëcc rëcc ay cëram yooyu yëpp julli mooy li nga xam ne moo ko ci laabal xanaa jeexit yi mu war a bàyyi ci moom yëpp julli moo koy efface moo koy far loolu mën na ko déggee ci benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra moo solo yonent bi di wax ne raaytum law anna nahran bi baabi ahadikum yaxtasilu fihi kulla yawmin xamsan ma taquluun ayabqa min jaranihi xaalu la ba xadis bi jeex day wax rek ne kenn ci yéen fekkante ne daa amoon ci buntu këram ak dex bis bu nekk mu sangu ci juróomi yoon waaw ndax ab tilim dana defet ci yaram saxaaba yi ne ko déedéet kooku ab tilim mu ko def ci yaram juróomi yoon koy sangu ak def mu am tilim mu ne loolu mooy julli juróom julli juróom dana la mel suñu borom da ciy far ñaaw teefi jullit bi ay ak tilim tilimam wax tamit ne waaqim beneen yoon wax waaqim salaata tarafay nahaar wa zulafan na lay day leen taxawal julli ci njëlbeenu suba bëccëg bi ak waaj ak ci guddi gi tamit kon loolu lépp mooy lan ngir ne mooy li nga xam ne julli bi ci lay yóbbuloo li nga xam ne mooy émergence ci wàllu rox moo tax kon jubluwaayu rox boobu lu am solo ci wàllu julli waaye nag lépp nag ci kaw ñu koy bàyyi xel ci jubluwaay boobu muy ñu koy def ànd ci ragal yàlla ànd ci caution ñu ko sool xarit waxee ne ñun wax lépp ci ay ngëneel julli day fekk nag kii def mu def ko ànd ak ragal yàlla ànd ak caution ci biir julli gi tere gi may tere ñaaw tey fekk ak yëpp day fekk nga def ko biir caution waaye ku amut loolu loolu mën naa nekk ay xanaa ay forme mën naa nekk forme nii rek waaye dëgg-dëgg la taxoon jubluwaay ba mën naa bañ a am dëgg-dëgg waaye tamit julli dafa amat bànneexu roox bu ci nekk boo xam ne julli bi bu nekkee ci julli jullikaay bi di di déggante si borom ba léegi bànneex boobu wër ci ci boppam bànneex boobu sax moo tax yun di pal sam doon wax ne sama sama sedd xol suñu borom da ko def ci julli biayat kurata ayni fi sala ngir lan li muy yëg ci bànneex roox buy julli mënu ko yëg ci beneen jàmm yàlla bu mu moom moo tax mu wax ne jumelat proton ay ni fi salaam te it moo taxoon sax mu mu mu mu jàppoon ko loo xam ne ci lay amee noflaay su ma saam coono bu àdduna coono bu àdduna ku ma saa dikkal day wax bilaal ne ko bilaal noddal taxawal julli ndax ñu nopp yaa bilaal aqimi salaa arihna biha bilaal noddal noppal ñu taxawal julli bi noppal ñu kon julli kon bànneexul ban bànneexul fa dasee nekk ngir ne mooy fi julli julli bi ci gën a jege boroom ci ab dundam mooy mooy mooy julli ñu di ko wax na woon nit nit ki fi muy gën a jege boroom moom fi mu nekk ci sujjóot sujjóot moo tax li muy yëg ci bànneexul koy julli mënu koy ci beneen jàmm yàlla waaye tamit ci la am noof lay am addunaa ki coonaam ak jafe-jafeem nit ki daal saa bu taxawee julli rek yëpp daal mën a nekk ginnaawam su teewloo julli ko ni mu ko war a teewloo noonu kon dafa am noofu laay àdduna ñu ngi nett li Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bu mu nekkee Mauritanie fi ñuy wax saxeetul ma ci xumaag guradu bu metti daf ko àddaloon bu metti ba wax ne sax daw xam ne bu dégg ba fekk metti waayu guradu bi ba taxoon taalibe yi am ñeewantu ci moom lool murid yi am ci mu amoon moom ci mu ñeewantu ngir gisoon nañ ne ak lu wér a digg metti metti bu mu taxawale julli dana jóg ànd ak mbooloo ma ci jàkka yi julli ànd ak ñoom ak lu metti metti metti ñu yëngu ca lool ñeewante ko ci ba ñu wax ne sax am na boo xam ne dañoo xalaatoon sax suufeel nodd gi ba bañ ko ba ñu ba ko dégg ba ngir ñu noppal ko ci ngir coono bu mel noonu coono bi xam ne dana ko yëg buñ ko yëgee li mu lay wax daneen ne bokk na ci karaama yi ma suñu borom defal jagleel ma ko mooy ne bu julli jotee suñu borom daf may dëgëral moo xam danga fekkoon ci wéral yi wala ma fekk ma ci wéral bu ma suñu borom daf ma yokk dëgëral ba ba ma daa damaa taxaw julli gi du ma ci am benn jafe-jafe suñu borom da ko daal di oyofal ba xasee dégg nodd gi ba taxawal julli gi ba noppi nga xam ne ci kon bu xasee dégg nodd gi rek daal lay yëg noof laay ci boppam bu ko may mu mën a taxawee julli gi ak lu wér gi de metti metti ci nee nag su su ma nopp mais su mu ne bu noppee ci julli gi nag wér gi daal dellu si na mu meloon wala lu ko raw ba suñu borom di dogal wér gi war a jax ci man kon loolu day dëggal rek li yonent bi alayhi salaatu waxoon ne arexna bi salaat ya bilal kon julli day ab noflaayukaay la ci ab jullit fuy nopp loola fuy dawe coono adduna la loolu lépp kon waaye lépp nga xam ne ñu bàyyi xel ne sàttam ñuy joxe julli gi ànd ceeg ragal yàlla di ko bàyyi di ko fëglu xam ne ñu ngi taxaw ci kanamam di def ay santaane kon bu ñu doon tënk rek li nga xam ne ay jubluwaay la te di delluwaat ci roxu kii julli mën na wax ne kon bi ci jiitu mooy dana ko jox dana ko yokku énergie ci wàllu reex kon nit ki ni muy jëfandikoo aw ñam di ci am taax jismiya bu jullee julli gi dana ca amee taax rox yi waaye tamit bokk na ci jubluwaay yu roxu mooy tamit dana mooy bën bi nga xam ne mooy jàppale julli bi ak borom day mel ne julli bi saa bu taxawee julli rek am na connexion ak borom ba pare mooy bën bi nga xam ne mooy jàppale diggante mag boromam waaye tamit mooy li nga xam ne mooy dëgëral diine nga xam tey jii ñaare ku am di ku am di ku mën a jul ku mën a jul dëggantaan da koy def ni ko waree jël si yëpp da oyof ci moom day dëgëral kii daa mooy bokk na ci ay njëriñam ba tey mooy day yéege nit ki day eggale ko ci fa fa martaba ba gën a kawe ci ak ak abudiya ndax amut lu mën a feeñale ak njaam ci suñu borom lu kawe julli ndax li ci def lépp ak feeñale njaam sëgg di sëgg di juutoot ah ak di di wax ay ay ay loo xam ne ci moom la jóge la lépp ak baat yi ñuy wax xam lépp tawxiid la ak ak nangu ak njaam loolu lépp moo tax ñu ne day yéege nit ki ci daraja ba gën a kawe ci wàllu ak njaam waaye tamit ci ci julli ci la julli yi amee ak dal ci la amee noflaay comme ni ko jàngate léegi ci Cheikh Xadim radiyallahu anhu jàngat ko ci alayhi salaatu salaam ni ko doon wax ci Bilal moo ko noonu kon yooyu yëpp kon loolu yenn la ci yoo xam ne jàpp nañ ne lan ci jubluwaay yi yi nga xam ne julli am na ci wàllu rox la ci départ mooy maqasid yoo xam ne ci ci wàllu maqasid nafsiyel ñu ko tuddee xam nañ ne islaam dafa ñëw ngir lan ngir sellal bakkan jullit bi kon day mel ne sellal bakkan jullit bi jubluwaay la ci jubluwaayu islam ñu maqaasid islam julli nag war caa bay waaram yoo xam ne waar wu réy réy ci salal bakkan julli loolu daa bokk ci maqaasid islam qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha bakkan julli ko ki ko ko ko ko sellal texe na waaye ko tilimal sooy na texe dina sooy na kon tazkiyat nafs boobu nga xam ne daa bokk ci maqaasidu islam day day bokk tamit ci maqaasidu salaa julli di di taxawee ndax xam nañ ne aadi bi ñu jàngale nga xam ne julli bi day jaam suñu borom mel na mi ngi koy gis bu ko gis xam ne suñu borom moo koy gis tamit loolu mooy ni ñu koy bàyyi xel ci wàllu xolam noonu tamit lay moytoo yu bare bare ngir xam ne suñu borom mi ngi mi ngi ci teg mi ngi teg bëtam mi ngi mi ngi koy mi ngi jàkkaarloo loolu kon moo tax bi ne julli day taxliya bu taxliya dana tax nit ki mu bàyyi yu bon yi nga xam ne xañ na jikko yu jikko yu bon la wala yu jubut la yépp mën na ko moytu waaye tamit dana tax mu jëf lu baax moo tax suñu boo waxoon ci aay ba inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar ki nga xam ne day julli julli gi dana dem ba tere ko ñaawteef bu mag abu ndaw loolu maa def leen lu lu noonu la kon jubli kon sellal sellal bakkan ki kiy julli loolu bokk na ci jubluwaay yi tax suñu borom fartal julli ñoo ci ñoo ci bari ci ay bari ci alquran xad aflaha almu'minuun allazina hum fi salaatihim xaashi'uun waaw texe na julli julli ñi texe nan ñi texe ñoo ñan mooy ñi nga xam ne day julli te di ko def ci ak ragal yàlla waaye tamit benn aay yi wax ne day leen taxawal julli ci njëlbeen bis bi ak ci mujj gi ngir lan ngir ne yooyu ngeen def mooy farñaateef yi nga xam ne mooy am ci diggante aqmi salaata tarafay nahar wa zulfan min layli inna alxasanaat yuzhibna sayyi'aat daalika dikraa lizaakiriin kon nit ki bu dee julli bi bu dee taxawee julli li li jaar ci diggante julli morom ja ci ay ñaateef julli da koy fàtt julli morom ja day far li li bakkaar yi jaar ci diggante bi waaye jullit bi nga xam ne nag day am audience ak suñu borom jamono ju nekk ci diggante yu jege diggante bi fekkente def na ko na mu ko doon defee na mu ko war a defee loolu mën naa bàyyi ci moom lu ñu tuddee waasiya diini boo xam ne lu koy jàjj ci ci ci xolam lu koy jàjj ci xolam boo xam ne dana tax su bëggoon def yenn si du ko mën benn aay suñu borom muy wax ne doomu aadama ne dañ ko bind inna l-insaana xuliqa haluu'an isa masahu charru jazaa wa isa masahu xayru maanaam illa almusallin alladina hum ala salatihim daaima nit ki su borom da ko bind muy ko xam ne maanaam daa mën a ku ku gaaw a jaaxle la fër-fëri gaaw a gaaw a jànnaxe su ko aw su ko musiba dalee mu saali su ko jàmm dalee ak xéewal mu mu téye ko nay ca bañ ko bokk ak ay bokk jullitam loolu doomu aadama loolu ko yàlla loolu doomu aadama loolu ko loolu ko suñu borom bindee waaye nag ñëmu ci tolloo la mooy almusalli kon ñëmu ci ca jikko yu yàqu yooyu mooy almusalli ndax loolu yooyu yooyu yëpp ay ay ay jikko la yoo xam ne du doon jikko doon jikko yu baax saalit wax lu jaarut wala nay ci aw yiw loola ka ca mucc mooy almusalli ñoo la suñu borom wax ñoo ca mucc kon loolu day dëggal ne kon julli dans tazkiya bakkanu kuy julli ba yenn jikko yu ñaaw yi nga xam ne nattoo nañ ko ñeneen ñi moom mu ne tàmmu ci ngir ne daare tarbiya yooyu mu nekk ku julli mën na ko tarbiya ba jëlee ci moom jikko yu jikko yu ñaaw yooyu kon mu ne sa jàpp ne kon benn keno la ci keno yi islam yi nga xam ne dañ koo teg ngir di ci sell di sell bakkan moom julli da ci fóot ayu bakkan yi benn ndax jul bi ki nga xam dana tase suñu borom juróomi yoon ci bis bi par force par force dana tase suñu borom juróomi yoon ci bis bi loolu tase suñu borom lañ wax dajeeg suñu borom loolu di di déwante moom déwante bi mooy waxe suñu borom lay wax ci làmmiñam yoo xam ne ci moom la jógee muy alxuraan bi muy jàng waaye tamit ak zikr yi mu tudd yi ci biir julli lépp di ko ci kañ moom ci biir ak yi mu ci def ci ay yëngatu lépp loolu lépp lu mu doon luy luy beesal gëm yàlla lu mu daal lu tax mu am ragal yàlla lu tax mu tax mu fuglu suñu borom loolu kon bu julli bi war a taxawee mën naa am mën naa am sell bakkan bi sell boo xam ne yu bare bari mën na cee mën na cee mucc kon bu ñu gisee julli yégante gi ñu jégante loolu ngir rek gëm yàlla julli di gën di dëgër jamono ju nekk waaye tamit julli yi di ko gën di soññ ci ñu gën ñu gën a yor jikko yu baax kon loolu loolu lépp ay jublaay la yoo xam ne ina da ci yokkuwaat mooy julli mën naa dimbali ko yàlla boo xam ne ni ko mën na ko dimbali ko ci coono adduna suñu borom moo ko wax adduna bari na jafe-jafe waaye nag am na lu mën a dimbali ko waaye bokk na ci muñ ak julli wastainu bi sabri wa salaa wa innaha la kabiratu illa ala alxaashain kon loolu lenn la ci jubluwaay yi nga xam ne moo tax tamit moom tamit mën naa dimbale tamit ci muñ muy muñ doon jikko ju baax tamit yoo xam ne jullit ba ko soxla ci jamono ju nekk ndax foofu julli gi julli gi ak julli gi lan lëkkale kon boobu wane na bu baax a baax li julli taxawee ci julli nit ki ci ci yar bakkanam ba ma mu mu mu mucc ci bare bare yonte bi benn bés ñëw nañ ci moom ne ko waa ji ku mën a naafale guddi la waaye bu xëyee day sàcc yonte bi ne ah julli gi muy defee dana ko tere julli gi naafale guddi gi muy defee dana ko tere balaa yàgg maanaam julli googu mu julli ci guddi ci kanam dana ko matata te te teex la noonu la amee yàgg gi mu yàggee julli naafale guddi dem na ba mu bàyyi loolu kon li ñu waxoon ne day day defar yar julli bi di defar bakkanam loolu nga xam ne kon loolu benn benn xa benn xarit tamit jenn waay ñëw na ci yonti bi di ko wax ne ko moom daa fóon jigéen joo xam ne araamu ko tiit lool di jàmbat bàkkaar boo xam ne def na ko muy daa fóon jigéen joo xam ne araamu ko alxuraan daal di wàcc wa aqim salaa tarafay nahaar wa zulafan min al-layl inna alxasanaat yudhibna sayiat dalika dikra li zakirin bi bi ay wàccee yonent bi daal di woolu waa ji mu ñëw ñu jàngal ko aay bi te aay bi li muy wax mooy beel taxaw julli suba ak ngoon ndax nag yu baax yooyu ngay def bu julli yi ñooy yóbbu ñaawteef yi ñooy far ñaawteef yi ñu jàngal ko aay bi waa ji ne waaye waa ji ne ko saxaabi ne ko ah kon aay bi man maa ko moom yonent bi ne ko yaa ko moom ak képp ku def lu mel ne li nga def sama xeet bi ak képp ku def lu mel ne li nga def sama xeet bi kon bépp ñaaw te ko def rek maanaam julli mën na mën na koo kafaara mën na koo fara kon loolu wane na kon li ñu wax ne moom jublaay boobu lu am solo la ci julli muy muy tàgg tàggat julli bi yar ba kanam waaye tamit ñaaw teef yi ñu tegoo mën ko ko faral lépp yéen tamit dañ ci benn xadis ñu wax ne da ngeen di di lakk di lakk waaye nag su ngeen julee suba maanaam da ngeen def ay ñaawteef yoo xam ne ñaawteef soo mën na leen lakk mën na leen lakk waaye nag bu ngeen julee suba julli suba gi moo koy far moo koy raxas ngeen di war julli suba gi di defaat lu leen di lakk di defaat lu leen di lakk waaye bu ngeen julee tisbaar tisbaar ji raxas ko fóot ko ci yéen bu ngeen julee koy ngeen delluwaat defaat lu leen di lakk defaat lu leen lakk waaye bu ngeen julee timis timis gi fóotaat ko ci yéen ba mu set ngeen delluwaat defaat ay ñaawteef yoo xam ne mën na leen lakk waaye bu ngeen julee gee tamit gee gi raxas ko ci yéen ba mu set su ko defee ngeen nelaw bu ngeen nelaw nag day fekk yóbbaale wu leen benn bakkaar ba du ngeen di yeewoo tax tariqoon tax tariqoon fa isa salaytum subha xasal xasal taxa suma tax tarixun tax tarixun isa salaytum zuhra xasalataha suma tax tarixun tax tarixun isa salaytum al-asra xasalataha suma tax tarixun tax tarixun isa salaytum al-maghriba maghriba xasalataha suma tax tarixun tax tarixun isa salaytum al-isha xasalataha suma suma tanaamun fala yuktabu alaykum hatta tastaxibu kon loolu lépp kon day wane kon rek ne lépp lu ma toggoo ci ay xeeti bakkaar julli dana ko faraat ci ñun ci ci waxtu waxtu bi ba taxaw yëpp bu su ko par mooy xam nañ ne yooyu yëpp nag li koy màndarga mooy ñu taxawee julli gi comme ñu koy waxee woon di sàmmonte jubluwaay yooyu nga xam ne moo ko tax a jóg suñ ko deful nag mën naa rek ay forme yoo xam ne la yonent bi alayhi salaam waxoon rek baraa na kuy naafale guddi koo xam ne cëram ca naafile ga dara lu dul ñàkk nelaw du ci am benn tuyaaba baraana kuy woor koo xam ne cëram ci koor gam doon def du dara lu dul xiifa ku mar ruba xaa'imin xazuhu min alqiyaami sahar ruba saa'imin xazuhu min alsiyaam aljuum wal atash kon sàmmante jublaay yooyu lu am solo bi ñuy mujjee ci jubluwaay nag mooy jubluwaay yoo xam ne ci wàllu wér yaram la jëm xam nañ ne waaye nag ci ginnaaw xam nañ ne julli dañ koy def ngir topp digal suñu borom ak di ko teexlu subhanahu wa taala waaye du tee ñu xam ne am na njëriñ yoo xam ne ñoo koy jëriñoo comme ni ñu koy xool yoo xam ne jox suñu yaram ak suñu wàllu bopp wax yi wax nañ ci bu nopp wax nañ li aj suróo gi wax nañ ci bu nopp waaye yaram bi tamit da cee jëriñu bu baax a baax ci julli ndax buñ xoolee julli ak tàggatu la tàggatu yaram tàgg tàggat yaram la boo xam ne lii tuddee suñ mafaasil yi suñ kii tenko yi suñ muskil yi ak yu mel noonu yëpp da ci koy tàggat waaw julli julli bu fekkee daa baaxoo julli dipp ak ndaw mu julli ba yàlla def ko magum lislaam neewaa na mu tële luy dal luy dal luy dal mag ñi bare bari moom mën a mën a am yàlla mu borom mën na ko cee musal ci bare bari muy sirlu yi bañ wala ginnaaw koy bañ ndigg wala yu mel noonu yooyu yëpp loolu kon am mbokk mu amul seetlu ku amul seetlu ma saa wax bis ne ma maa damaa seetlu daal ñu ma mos a dégg ñu xam ne xañ ne fekkuma leen fi waaye dégg naa naafi naafilekat yi gudd leen woon ñi ma ci dégg yow gis naa ne gudd leen fan te am ñu wérat yi ba ñu baax ñi ma bokkal dund ñi ma gis ni ñoom bokkal dund ñoom te fonk naafile gudd tamit du ko naafile ci sonn lool gis naa tamit suñu borom mu leen di xewal gudd fan lool te gisuma tamit ñuy tële loolu ak mu am bokk ak seetlam la boo xam ne xëy na jotaay bi la yaa ñu joxe ay tur waaye moom da la ci joxal ay misaal yu bare bare bare yoo xam ne ñoo xam ne si ñoom ci mën naa naafile gudd ak ñu mën ñu guddee fan ak ak ñu amul wér ba ñu faatoo ak ñoo xam ne bala yi ñuy fii suñu borom da feexal ñu kii loolu loolu day wane rek li nga xam ne dafa am jot si nekk ci wàllu wàllu wérgu yaram tàggat yaram la boo xam ne mën naa tax mën naa tax yu bare bare ci ñu koy jàmbat ndax circulation sanguine bi am ci yaram loolu ku na xam ne ne nit mouvement yi nga ci julli mën naa mën naa mën na ci lu baax la waaye tamit wàllu reesal lekk mën a ku na xam ne naafile yi kii loo ndogu ndogu daanaka boo xasee taxaw naafile yi ba mu jeex soo delloo kër gi yaakaar naa la joxaat da nga ci mën a xew lu baax a baax lu ko waral mooy julli gi yoonu julli moo reesal lu bare bare ci li nga xew loolu kon loolu ba tey kon xam ne ne loolu misaal mu mën a joxe mën a joxe wàll boobu la na ko lu bare bare ci yooyu am na kon kon wàllu kon jubluwaayu kon bu bu ñu jëlee jubluwaayu ruux ga jubluwaayu pas-pas yi ci am ak jubluwaayu li muy defaree jikko ak li muy faree bakkaar ndeke tamit am na lu mu ñu mën a jariñ suñu wàllu yaram ci wér gu yaram nga ah ci buñ ko dee def di ko sellal ñu ko waxee mooy kàcce nag ne dafa ànd ak ay valeur yu mu àndal ndax julli dafa ànd ak laab te laab bi valeur bu am solo bu islam jox ak dafa ànd ak cet ndax julli julli balaa julli dana jàpp léeg-léeg mu sang setal yaramam waaye tamit la muy sol di julli lu set lay doon du laab barab bi mu jullee tamit doon lu set lu laab kon loolu julli bu ko dee tàmm di ko def loolu dana ko yar ci loolu ci ak cet te ak cet kon xam ne ne ci la ak wér-gu-yaram aju lu bare bare bare xam nañ tamit ne suñu borom day digle képp ku génn dem ci jàkka mu sol lu rafet lu taaru du xeeñ tamit lu neex laaj ko lañ loolu lépp yaa bani aadama yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu wala al-musrif kon bu ngeen dem ci jàkka lu ngeen mën di sol ci lu rafet na ngeen ko def waaw xuzu zinatakum inda kulli masjid kon loolu ba tey loolu kon loolu ay jubluwaay la yoo xam ne bu bu ci mujj mooy wér ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu cet yoo xam ne julli làmboon ak mu yokk ci waxoon loolu kon li ñu jeexale rek mooy ne mbokk yi jullee ñu noonu ci wàccuwaayam boo xam ne benn jaamu yàlla amu ko ginnaaw bu julli bi bu seere ñaari baat seede yu noppi amul genn jaamu yàlla bu toll ne moom goo xam ne suñu borom tànk na ko noonu waaye tamit amul lu am jeexit ci ab dund jullit lu mel ne li ko julli amee ci julli ab jullit bi jeexit boobu na gis nga ci wàllu yëpp penn ci ci rooga pas-pas ba ci jikko ya waaye ba ci yaram bi sax lépp day feeñ ci kéew ñu loo xam ne ñu loo xam ne dana tax buñ ko fonkoon buñ ko war a fonkee yàpp jàpp nañ ne waroon naa mën a indi ay coppax dëkk yu bare bare bare bari ci dundu julli ñu tey su fekkoon ne gis xool bu ñu ko waroon xool ci lii xoolan ko xool bu xool boobu jàpp ko ni ñu ko waroon jàpp waroon naa mën a jubbanti lu bare bare bari ci yi am ci julli ju julli ñu tey jii su fekkoon ne jéemal noonu di am jubluwaay yi nga xam ne moo tax suñu borom partage julli ci ñun du ko jéem a am du ko jaara ci ci kër yi ni ñi tàggate xale yi ci julli li bu ñu doonee xale yooyu yar ca loolu ba ba ni ñu demee ca jàngukaay ba ñu koy suuxat ci loola ci moom ba ni ba ñu demee ci biir barab jàngukaay yàlla yi ñu ko fay ñu ko fay suuxat loolu su amoon jàpp nañ ne waroon naa mën a def ci julli bi yëg-yëg boobu mu mu xam jubluwaay yi nga xam ne moo tax suñu borom fartaal julli ci moom te jàpp nañ yooyu wax yëpp benn benn dëkk ñàkk ñëpp am nañ ko am nañu kër am nañu jàngukaay am nañu jàkka yooyu bu ñu fekkoon ne ñu ngi fiy jéem a suuxat julli ñi ci wàllu bi ñu leen tuwa ci loolu war naa mën a andi lu bare bare ak coppat ci julli julli ñi kon loolu lañ bëggoon a fàttalante mbokk yi di jéglu bu baax a baax ci fekkee lunt am na ci di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu li fi def ci ay jaamu yàlla yëpp julli yeeg woor yeeg jàng mu alxuraan meeg jëf yu baax yi ñuy taxawee di fàttalante diin suñ suñ suñ mbiri diine waaye tamit di lele lépp luñ ci jëf lépp li ci dàkk ngërëmam yàlla suñu borom dajale moom waaxu daawana alhamdulilah rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh